mafatih albishri walamni waljanna fi lsalati waltaslimi ala muqimi sunna Seyhanım Ağaca Seyhanım Ağaca Seyhanım Ağaca Seyhanım Ağaca Seyhanım Ağaca What do you want? What do you want? When do you want it? What do you want? Tiffany, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ku yor ku yor micro bi ku yor micro bi. Just say no justice, no peace. That's it. No justice, no peace. We can't. We gotta stay. No, no. You don't get what? If we get shut no, no, no, no. Why? What are we doing? No. Just have to. Justice. That's it. No, we want justice. You want justice? That's it. You have to keep a chance going if you're going to get If we don't get it, shut it down. If we don't get it, shut it down. We can't. You can't do that. Because I'm like, it depends. Do it. All right. If we don't get it. Shut it down!

Justice for GB. Say his name. GB. Say his name. GB. Say his name. Justice for Aja. Say her name. Aja. Say her name. Aja. Say her name. Justice for Hawa. Say her name. Hawa. Say her name. Hawa. Say her name. Hawa. Say her name. Hawa. Justice for Hassan. Say her name. Hassan. Say her name. Hassan. Say her name. Hassan. Say her name. Hassan. Justice for Hadija. Say her name. Hadija. Say her name. What do we want? Justice. Justice. Justice. Justice. Justice. Justice. Justice. Justice. Justice. for the John family. justice. Now. When do we want it? Now. When do we want it? Now. When do we want it? Now. What do we want? Justice. What do we want? Justice. What do we want? Justice. What do we want? Justice. What do we want? Justice. When do we want it? Justice. When do we want it? Now. Do we want it? Now. When do we want it? Now. When do we want it? Now. Say the name. Say his name. GB. Say his name. GB. Say his name. GB. Say his name. GB. Say his name. GB. Say his name. GB. Say her name. Say her name. Say her name. Say her name. Say her name. Say her name. Hey, say her name. What do we want? Justice. What want? Justice! Justice for GB. When I say justice, I want to hear you say for GB. Justice! For GB! Justice! For GB! Justice! For GB! Justice! For GB! Justice! For GB! What do we want? When do we want? When do we want it? Now! Let me take my mask off. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. Uh, asalaamaaleykum mbokku sénégalais yi mbokk immigré yi nekk uh, fépp ci bitim réew comme ni ngeen ko gisee tey. Euh, liñ fi doon seetaan sànq ba tey yëpp lii fi xew nag mooy euh, comme ni ngeen ko xamee rek lakk bi fi amoon keroog te juróomi doomu sénégalais euh, ñàkk ci seen bakkan loolu rek moo tax ñu ñëwoon fii parce que enquête bi dafa wone ne lakk boobu dafa nekk làkk boo xam ne am na ay nit ñu jug taal lakk boobu donc li xew. donc loxo nit moo ci jaar donc nit moo ko def booba tey nag loolu mi xew la 5 août tey jii ñu ngi le samedi 5 septembre mu def un mois boo xam ne lakk-lakk boobu xew na mu def un mois boo xam ne sénégalais yi nekk fii ci Denver ñu ngi dund euh, ci ci euh, ci nakar mu def un mois yoo xam ne sénégalais yi nekk fii ci Denver bu ñu tëddee du ñu nelaw bu ñu naanee euh, du ñu màndi mais aussi bu ñu lekkee du ñu suur parce que kenn nekkul ci jàmm te lii mën a tax ñi ñi nekk ci jàmm rek mooy ñu xam ñan ñoo def lii ak lan moo tax ñiy def ko loolu rek moo waral tey jii boo leen xoolee fii nii seen ginnaaw ngeen gis fi ay téeméeri téeméer ak ki nit ñoo xam ne tey ñëpp ñëw taxaw ngir demander justice ñëpp a ñëw taxaw ngir laaj yoon euh, def euh, li nga xam ne moom la war a def waaye aussi police def seen liggéey ba ñu xam ne ñoom ñoo def euh, ñaawteef bu ñaaw ji ñu mën leen jàpp ndax caabi mën leen feete ginnaaw ndaxte bu loolu amul rek ñi xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu nekk ay sénégalais waaye nekk ay africains parce que c'est très important ñu souligner ko tey jii ñi ngeen fiy gis ñi ci bëri ay sénégalais lañ waaye majorité bi du ñu ay sénégalais tey jii di nga fi gis ay éthiopiens di nga ci gis ñoo xam ne ay ay waa oromo lañu di nga fi gis ay yeneen yeneen pays d'Afrique yoo xam ne diaspora africaine bi yëpp bi nekk ci état de Colorado nekk ci euh, ville de Denver ñoo ñëw taxaw laaj ci justice demande justice pour la famille Dior mais aussi demande justice pour rek te mu war leen woon ni fépp fu ñu nekk en tant que sénégalais en tant que émigré mais aussi en tant que africain dañu war a jàppante nekk benn communauté ndaxte lépp loo xam ne dal nag ci kenn ci ñun rek dafa mel ni war nañ jàpp que ñun ñëpp la dal waaye aussi mën na dal ñun ñëpp donc ñuy jaajëfe rek di remercier ñëpp ñoo xam ne ñëw nañ fii tey que ñu nekk ay sénégalais que ñu nekk ay africain mais aussi que ñu nekk juste ay américain yoo xam ne li xew da leen metti te ñëw taxaw ànd ak ñun ngir demander justice salaamaaleykum euh, mbokku seetaankat Bichri TV man maa ngi tudd Omar bokk si famille Jool bi ndax mun naa wax si famille bi la bokk ndaxte ji bi man maa ko njëkk dalal bi mu ñëwee États-Unis donc tey mun nañu wax ne bisu tiis la wante tey bisu mbégte la parce que bisu tiis mooy dañuy commémorer benn euh, mois disparition bi fi amoon euh, fale ci Green Valley Ranch mais mun nañu wax ne mbégte la nga woo nit ñi communauté africaine bi yëpp wuy si la fii gis nañu mbooloo bi nu mu takkoo euh, franchement nga mun a ràññetle jibi nitu social bi mu nekkoon nit bu baax bi mu nekkoon nit bu tabe bi mu nekkoon nit ku yàlla baaxaloon bi mu nekkoon donc euh, ñu ngi profiter rek ci occasion bi remercier communauté sénégalaise bi yëpp yëpp yëpp yëpp remercier communauté africaine bi somalien yi éthiopien yi malien yi nigérian yi mauritanien yi bàyyiwuñu kenn euh, vraiment ñu ngi leen di ñaanal yàlla bi am fay yàlla na leen yàlla fay ñoom ñëpp di remercier waa Bichri TV euh, seen teewaay fii di leen masawaat encore bu baax a baax si tàngoor bi jërë ngeen jëf salaamaaleykum asalaamaaleykum euh, na ngeen def euh, ñu ngi leen di nuyu di leen sant di rafetlu tamit seen déplacement bi ngeen ñëw fii bokk ak ñun sunu tiis bi ñu nekkal mais yàlla def na depuis le 5 août bi ji bi décédé ba léegi wax dëgg yàlla affaire bi metti nañu trop presque yëngal na adduna bi yëpp nekkul Sénégal kese moo perte. waaw parce que ni nu mu toll ci Sénégal noonu la toll ci adduna bi yëpp népp di si jooy mais yàlla def na comme tey dañoo dajaloo woon fii. woo nit ñi pour ñu wane suñu naqar ci justice pour am nu mu def waaw boobu ba léegi amuñu si ay yenn renseignements yi mais taxul mbooloo mi yëpp ñoo leen fekk si képp koo xamante ne africain wala ngay dër bu ñuul wala ngay dëkku ndoom même bu nekkee nit ku weex nga ñëpp déplacé wu naw ñëw fekk si ñu en tout cas yéen tamit seen déplacement ñu ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm merci beaucoup. musidɓe tedduɓe ha joni eɗen ɗo e nder danvere colorado eɗen gandi guila baɗal waɗi euh, famille diol woni djibi diol e joom suudu mum e ɓiyum e banum debbo kañumne wonde kadi e baɗum guila ɓe jeehi e guila nden ha joni ko fuɗɗi kewon yiyede joguiɓe ko fate wittu ko koɓe jaltini ko ko mbiɗen ko tumamuye bannoɗo kono e tolno joni e yimɓe tato woni koɓe kolliri kono noon ko watɓe masqueji ɓe ganduɗa nati mumen en laaɓani ha joni noon koye jiilaw wona ko ɗum tan woni ko fuɗɗi feñde ko ɗum saabi ni o ɗiɗo ko wiyete ko dente dentude ko wayno sénégal naaɓe e denndaangal africaine naaɓe yentude e ɓeeɗo e ɗo e ndeer ko wiyete ko hoɗɓe ɗo walla jeya jeeyaɓe ɗo e nder leydi ndi ha tengti horɓe ɗo e nder danvel colorado kañum fof ndendi mbaddi junggo e fandu beele watɓe ndeɗo bonande ene jiite kadi ndewna e lawol مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة